kenn ku ci nekk ki démb maa ngi dégg ci télévision bi ñuy wax weeru koor góor ak soxnaam xoolal fi réew mi toll yooyu dafa enfantin trop franchement waaw dafa ruslu sax nit di xalaat loolu dafa ruslu waaw sëñ bi ku dugg sa néeg sa jabar dagan la ndox mi ngay naan dagan la fromage bi ngay lekk dagan la beurre bi dagan la bisaab bi ditax bi jus de jinjeer bi lépp nekk ci sa frigo nga dugg sa néeg tëj ko bu fekkee loolu nga mënul def ci sam xel ngir sàmm sa digganteeg sa boroom nooy defee sa xel sa jabar ah te bi nga timé lolu mu sedd guuy xeyna sax ya nga tal sa climatiseur teg ca moom ko jëndee ko sax xaalis tëj rap sa né te bi nga koy tiim yaa ci besoin parce que fekk na nga mar fekk na nga xif ta sa xel demu ci ku meuna muñ lolu ci sam xel te fekk nga soxla ko nek dans le besoin nan la sa xel di démé ci sa soxla C'est honteux. C'est honteux. moo tax danaay wax ni philosophie tasawuf waaw philosophie tasawuf ni ko yàlla wane ci loolu dafa yéeme te xam nga lekk gi xaraamul jëmmi lekk gi moo xaraam ndax bu jant bi di so lekk gi di daggan waaye seetal loo moom la yaa ko jënd ci sa xaalis xiif teg ci mar teg ci mi ngi nii ci sa kanam nga tëj sa bunt la dox sa digganteek loola ba tax laaloo ko bu koor gi jeexee boo ko tegee ci sa digganteek sa société ak nit ñi lépp dox